baay laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah jiri laa

moo waral lii ana kaw lakk waral lii. Seexal Islaam moo waral lii. Seexal Islaam moo waral lii. man jërëjëf baay. jërëjëf baay Barhama. jërëjëf baay. jërëjëf baay Barhama. waaw waaw jërëjëf baay. jërëjëf baay Barhama. jërëjëf baay. jërëjëf baay Barhama. الإسلام ورا لي شيخ الإسلام نور اللي وعليكم من كل خلق سلاما دين فخلق إلى طول الليالي نوره أول الوجود وجودا ليس بالله وهو أصل الأصول والأنجال ne bàyyi nee na leerug Seydina Muhammad ak njëkk ci mbindéef yi bàyyi nee looy digg ak looy xalaat yàlla nga ko bind ci leerug rasulullah yi waawa aslil usuli wala jaale cheikh al nee na waxoo moom leer googu di leerug rasulullah yi aslul usuli mooy cosaanu cosaan yi ndeke leerug jant bi ngay séen di ko gis Cheikh al Islam ne yàlla nga ko bindee ci leerug rasulullah yi. bàyyi ne bu lëndëmee kiris la cay leer xati mooy leer gu rasulullahi mooy leer ga bàyyi ne yamantu rasulallahi taahal muqaddasa al islam ne jublu na sayyidina Muhammad mu sell mooma ani nit di wal abdaadi aslan mu assasa bàyyi ne amul amul ndend amul loo koy tëkkaleeg moom cosaan la di rasulullahi rasulun wa aslun naasi cheikh al islam nee na kookoy ndaw li nga xam ni mooy cosaan la moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam bàyyi ne bi muy xam ne lu yàlla bind mooma mam aadama ki diggante ba nag ndox mi nu ma sotteegul nee na amul benn nit nag bu noo wéttali ko lu dul rasulullahi rek di ko sax أنا طالب باي أنا وجاء بأمر الله وجاء بأمر الله وجاء بأمر الله وجاء بأمر الله وجاء بأمر الله موم رسول الله وجاء بأمر الله موم يرنت بي عليه السلام يدعو مبشرا يلا كو إندي كندقلم ويواتي دي بقلي موم رسول الله نذيرا شكورا باكرا ومقدسا ويكون صلو دي كو خمني دي كونو سانت دي كوي بقلي دي كو سل موم رسول الله لا إله jàmbaari islam jàngoo jàmbaari tarixa jàngoo ana waa